salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bi yëpp di leen sant di leen gërëm Euh, di leen jéggalu nag di leen masawu coono ndax làmb bu métti sport la euh, di gërëm sama famille di gërëm sama staf entraîneur bi ba si mbër yi ma doon jàppale entraînement yëpp di gërëm ba si géer yi ma doon tëggal di gërëm ñi ma doon ñaanal di gërëm aussi bu baax a baax a baax supporters yi nga xamante ni dix heures fekk nañu génn seen kër yi dem stade supporter ni yendu ci naaj bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm merewuma kenn nag merewuma kenn yàlla bi nga xamante ni moo fi nekkoon démb moo fi nekk tey te moo fi nekk suba ñun jaamu yu xeebu yii ñun ñoo xamul lan moo gën si ñun mais yàlla xam na li gën si ñun kon nag yàlla nañu yàlla defal li nga xamante ni mooy gën si ñun man ñaan dama naan yàlla na ma yàlla defal li nga xam moo gën si man kon yàlla nañu yàlla defal li gën si ñun sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp merewuma kenn awma kenn